tey suñu waxtaan ñoo ngi koy jëme ci stade bee ñu war a ubbi tey te war ko tuddee Abdoulaye Wade ak ñun suñ gis-gis en tant que en tant koo xam ne ni yu mel nii su amee dañu ci xaar pour ñu wax ci suñu xalaat ñu ñaan nag suñ borom tabaraka wa lépp luñ ciy wax yàlla na fekk mu tege ci dëgg te askan wi gis ci seen bopp te xam ne li ñuy wax ñun duñ ci leble duñ ci fay bor ci barke naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi first first of ma jëkk a mooy immigration stade boobu maanaam jàpp naa ne du woon loo lu war a am ndax stade bi sax moo war woon a am parce que Sénégal ni muy doxee xamuñu lan ñooy prioritaire cim réew priorité cim réew du ay tali du ay terre du ay stade création d'emploi stade bi bu àggee bu àggee dégg naa sax man amna ko mo sax ne ma ba tey àggul ah ci liñ wax àggul bon gis nga bu àggoon timit du mom moy développer Sénégal création d'emploi moy développer Sénégal mais du ab stade moy développer Sénégal ab stade minorité bu ya tuuti bu tuuti lay dundal ci rew minorité bu ya tuuti te nag yakarna naa Sénégal àgg guñ fo xamni ni war nañu mëna jër ay milliards yu toll nonu di def ci lo xamni presque créer wu dara am xam nga lan lan manam plaisir plaisir wol léegi man sax mënuma ko tuddé plaisir parce que plaisir bu am ñi nga xamni ni ñom ñoom ñoo dund dong ñoo ya ci am plaisir té ñoñu minorité bu tuuti lañ ci Sénégal ñiy dund ci sport bon kon euh, li lima ko gisee ay deal rek la ay deal la ay deal bon gis nga stade bi manam amna lu ko gënon a nekk prioritaire wax naa leen ne len Sénégal ci bopam yalla ci bopam yalla mi nga xamni mo sak lepp rew mu nek la fa bax yalla ko fa def ak walante nak population bu fa dekk ak volonté population ya dëkk man limay wax dama koy argumenter ndax té néna leen yalla bayu dara ci alcorane mo xam na nga dégg wala nga ñàkk ko dégg yalla néna sun borom tabaraka wa taala saarul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydi nas yaq yaq yi nek ci jéeri ji ak ci géej gi yëpp loxoy nit ñi génnuñ ci senegal nak famille libérale yi nga xam ne tey jii ñooy ñooy coow ci Sénégal nga xam ne ñooy diil ñun ñoo na toroxal famille libérale yi nga xam ne nii tey jii ñoo gouverné ñoo ñoo ña tëdd ña nga tëlleeg ña nga xam ne nii déggatoo leen ñu wax ñoom ñëpp ay milliards lañ tëddaale ay milliards lañ tëddaale ci famille libérale yi ci ndodd Sénégalais yi rek la jógee Sénégalais yi ñoom di gën a ndóol rek di ke a fayda rek di gën a ñàkk rek nga xamne man Abdoulaye job bu ñep meloon man stade boobu immigration ba dana yarax de bu ñep meloon man billahi ay dana yaraax billi ay bu ma nekkoon du mu fa jaar senegal nak bis bu nekk moy defal promotion li nga xamne mo koy ray senegal li koy ray mo koy defal promotion fa nek ndajalo mo ndajalo ngeen dem fa di keñeral ak lek ay sandwich ak ñu di leen jënd comme ay ganar xar sax xiar la ganar mo yomb yeen ak comme ay ganar njëgu ganar 3000 4000 2000 mom ngeen di jar yeen sénégalais yi fi mu toll tay ji ni yeen akoy fess tay ji ni bal la puy de yeen yeen ay fess stade ba bal la puy de sénégalais parce que yeen mérite wu leen sax ñu di leen tuddé tur yi tur yo xamné ni nii tur yi respectable la dee parce que yeen da ngeen a lor sen bop lor sen askan ñi nga xam ni seen yoon nekk sama classe sax yéen leen lor parce que yéen bu ngeen xamul seen seen bopp it noonu xam nañ seen bopp ñun kenn doon doole doole sa mbooloom ñun dun mbooloom kenn mbooloom yàlla la ni fas yéene doon ba ilaa yawmi diin kenn du ñu yokkee suñu mbooloo xam nga li tax xam sa bopp baax boo xamee sa bopp kenn du la yokkee kenn du la sa mbooloo xam nga li tax ñàkk xam sa bopp baaxul mooy boo xamul sa bopp da ngay daje ko xam boppam mu doole la bagaas loolu moo tax Sénégal loo woote bari mbooloo loo fa woote mbooloo moo lay top parce que lutax tax jëy li a bari ño xamne xamuñu sax sen présence ci kaw sof lan moo tax yàlla indi leen ci kaw sof sax xamuñu ko moo fo foo foo woote ball puy de yi ñoo fay fees ball puy de ñu jënd len ay 3000 ay 110 non yeen yeen Sénégal war ngeen a sen bop mais yéen da ngeen bëgg daal nii daal ngeen bëggee dee mooy nekk ci Sénégal paasu leen puusu leen nee naa leen yéen amul dara lu ngeen inventé ci àdduna yéen Sénégal lan ngeen inventé lan ngeen inventé loo xam ne amal na njëriñ àdduna amul ça n'existe jamais ça n'existe pas rien absolument depuis 1960 votre éducation il a quitté combien de milliards à notre pays. Il n'y a aucun résultat. amul benn résultat mi suñu jàng mi ñu doon jàng 1960 ba léegi puso mun leen ko defal puso puso puso képp koo xam ni dangay taxaw di damm ay erreur war ngaa rus war ngaa am gàcce naan intellectuel te yéen yéen a digal réew mi war ngeen am gàcce trop bu ngeen xoolee ñuy génn ci école yi école yi ci des di liggéey ci oto usines yi oto yi. dem jàngi Chine technologie trois mois donc ñëw nekk ci usines yi defar ay train nekk ci usines yi defar ay oto yéen yéen yéen xaalis bi ñuy def ci yéen bépp c'est peine perdue peine perdue bokk yi ma ñëw ci diggante mag sàll ak Ablaye Wade ak Karim Wade nga xam ne lii diil la waaye askan wi rek ñoo neex a parce que fii lu toll nii ñoom dañ leen kompaloo ba diil ci seen biir ba delloo si Karim Wade mu ñëw fii di opposé wu waaye damaa yaakaar ne Karim Wade duggoon parce que Karim Wade bu ñu ko mënee. bu mënee dugg Sénégal di Sénégalais comme ñëpp. ba pare ñu jàpp ko tëj ci réew mi bëccëgum dara kàmm tëj ko ci kaso ba doyal ko génne ko guddi génne ko Sénégal mbaq sànni ko nag mbaq mu génn Sénégal ñi jaaraat ba léegi am ay groupe WhatsApp ay ay organisation ñu ñu ñuy formé naan dooleel dooleel Karim ñàkk fayda ñàkk jom mu tëdd ca duwaab réew yi gën a tàng waaye am na am na climatiseur 24 sur 24 365 jours euh, euh, année yéen ngeen nekk ci tàngaay wi di former ay groupe naan euh, dooleel Karim retour de Karim lu ne dégg naa ko groupe yu ne xam nga man fu ne lañ may envoyé fu ne fu ne la retour de Karim mais Karim bu ñëwee Sénégal di daagu ci mbedd mbedd Sénégal est-ce que yéen Sénégal yi da ngeen ko xoolee góor est-ce que da ngeen ko xoolee ko am dignité est que dangeen ko xoole ko am ko am maturité est-ce que dangeen ko xoole ko am euh, euh, euh, nan la tuddati waay dignité pour pour diriger Sénégal no am amu ko amu ko mais sénégalais bi moom ko ko nax la bëgg nee naa leen sénégalais booy dajeeg moom na nga ko waaj a nax parce que boo ko naxut yi lam loolu la doon xaar ci yow famille libérale yéen yéen da ngeen leen a war a wàcc da ngeen leen a war a Sénégal yi te dee ak xib bu fekkee ñoo fi sës mais loolu asgor a koy def asgor gis nga man man Abdoulaye Diop man may dëggal sama bokk sama mbokk ak may seetaan wala bu ma seetaan lu itam danañ ma seetaan bu nekkut en direct itam danañ ko danañ ma seetaan xamnañ nañ ne man dama leen a wut ak batterie bu jeex parce que lutax moy man dama dëggal sama bopp man gannaaw yalla luma am dama ko ñafé man gannaaw yàlla lu ma am dama koo ñafe dëggal sama bopp boo nekkee ci kaw suuf nag te ñemewoo wéetaange te wéetaange moom ku ko ku ko ragal it dana ñëw nga dee ñu suul la yow kese kon boo naree ànd ak nit ci toppale ngir bañ wéetaay dangaa gëmut yàlla rek mais boo gëmee yàlla doo ko def Karim Wade gis nga Abdoulaye Wade mom bo déggee muy nangou dil bi Karim la bëgg andi té ñoom li ci jublu ñoom ñëpp xam nañu Ousmane Sonko askan ñu jox nañ ko bop ndaw ñi jox nañ ko bop mom rek lañu bëgg détruire politiquement xama man kuma comme tax ay nit dima am envoyé ay ay euh, dima ci wax lo xam nañ ne limay wax dama koy tek ci argument yu leer population Sénégal seen yaakar di gëna reuy seen yaakar di gëna reuy moy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko kenn ku nekk war nga koo ñaanal ndax obstacle yi nga xam ni moo koy xaar ci kanam bari na rëy na am na doole trop te fu ne lay bàyyi ko nag fu bitim réew ci biir réew mi koñ yee dëkk yëpp lay bàyyi ko dëkk yépp waaye nag damaa yaakaar ndaw ñi duñ seetaan la daloon Mamadou Dia dal ko ndaw ñi duñ seetaan la daloon Cheikh Anta Diop dal ko damaa ragal ne ku mën a doon boo jógee naan da ngay yàq Ousmane Sonko bu fekkee mais nag Sénégal moom réew la moo xam ne kenn mënu ko kenn mënu koo qualifié fenn xam nga foo koy qualifié xam nga foo koy parce que nit ñi amul jom ñoo fa nekk ñoo xam ne ni ja jaral na leen fen ngir nit am bu jaral na leen fen te nag jàng naa ci benn euh, ci benn xaw ma xam xasaayit laa te xaw ma ngi watarku naal kasiba yaa ixwaan yi afdalu min tilaawatil quraan yi bàyyi fen moo gën a jàng alxuraan mais Sénégal ngay gis koo xam ni ci fen lay xëy ci lay gont te fen yëpp fen yëpp ba boppam lay fàggul fàggul bàkkaar waaye nit lay wutal promotion fenam yëpp dara la ko du jëriñ ba bàkkaar dong la cay la ciy jële ba pare nit lay wutal promotion loolu nit ku nite du ko def ndax nag wa kulluhum aati yawmal xiyaamati fardan mais Sénégal gëmuñu gëmuñu laaye boobu Sénégal gëmuñu laaye boobu Sénégal dañuy jàng alxuraan mais dégguñu alxuraan lu tax lu tax bëgguñu ko dem eh, jàngi jàngi jàngi ma jaalis ba mën a tafsir parce que xam nañ ne ku tafsir da ngay yow dootoo jaawale kenn yàlla kenn yàlla dong nga fi nekk dama ne yàlla moo xam sax lay ñu nekk fii ci ci ci barab bi te ma xaw ma ci dara te maag ñëpp a ci yem nag maag ñëpp a ci yem ñëpp laa wax ñëpp génnewu ma ci kenn ci kaw suuf ñëpp am kenn ko xam li nekk sax lay ñu nekk fii ci ci ci ci barab yi waye amna ko xamni ni mom manam ngeum ngeum ngëm-ngëmam fi mu toll moom na ba tebli ak ay miracle moy defar senegal ba nga xamni effort bi nit wara def sax wattaqi fi ma ataaka allahu daaral akhirah wala tansa nasibaka min ad dunya ay shaahan nako def gëmu ko gëmu ko motax tax ma ne leen Sénégal dégguñu alxuraan la preuve moy 1960 ba legi ñi ngi ñi ngi tebli ñi ngi magal ñu ngi gam lan la yok Sénégal tay la tay la grand théâtre gëna fess tay la yëngu leen gëna fess tay la lamb yi gëna bari million tay la musiciens yi gëna gëna gëna a ay concert man amna lo xamne ni bu ma ci amono dogal dotu am taxaw ci sir sen nan ku sopp alaaji Malick yëkkati sa loxo lolu lan la yok alaaji malik man bu ma ci amono dogal billahi duma ko may ben musicien lolu yokut alaaji malik dara taxaw ci seen siir naan siir seen naan ku bu sopp Serigne Touba yëkkati sa loxo loolu yàlla lan la mën a yokk Serigne Touba dara ko yokku te ñi ay ay doomam ak sëtam dégg nañ ko ba tàyyi te ci dara mbokk yi dama ne Sénégal rek mooy réew moo xam ne nii men réew la ci àdduna bi dama ne eh, gis nga musicien yee ak mbeuri lamb yee lo xaw ñena may nañ concert est-ce que concert nit dana ci am ëllëg est-ce que kenn nit dong dana ci am emploi dedet yeen kay seen temps la mujj jël ngeen waroon julli ji timis julli jiw leen timis ngeen waro a julli ji gee julli jiw leen ge lool rek mën naa tënk Sénégal Sénégal yaakaaru leen yàlla yaakaaru leen laay bi yàlla sunu borom tabaaraka wa taala di wax naan walaw anna ahlul xuraa amanu wa taqaw la fatahnaa alayhim barakatun min as-samaa'i wal ardi bu ngeen ko yaakaaroon muy taw guddeeg bëccëg comme fii dama ne fii day taw guddeeg bëccëg samedi jóge naa fi une di daw ba une guddi te sama suwe glace yi arrêté wul benn yoon dimanche ba ma xëyaatee di ñibbi si jóge naa fi ba ñëw fii suwe glace yi arrêté wul benn yoon. lola tax loko jimu ji ñor looloo tax tay ji bo gene fe fek fa bakki buy jaay resin resin nga fek fa bakki buy jaay orange fek fa bakki buy jaay mandarin te te lolu yep xam ngeen ne mandarin moom mu ko bari la xam ngeen ne am lu am solo ndax ci la liggey sangal te dañuy turee liñ soxla yobbu ko ci usine ya ba noppi te xam ngeen Afrique Sud ñoo daxal naan sangal ñur kon xam ngeen ne liñ ci am lakk mënu ko jeexal am rew bu ñu yalla walaw anna ahlul qura amanu wa taqalu fatana alayhim barakatun minas samai wal ardi da ngay genn di dem ci de romb ku yor juróomi téeméeri nak wala junni nak am ten bo xam ni peut-être matul sax 10 mètres wante la teru ngelaw moy genn ndox ma nak yedi nan gis nga day fess day bo way wala gadi ñew ci kaw tali nga seen ab baykat bo xam ni lawantel tel ba moo feesal moo feesal kii ba machine yi ay ay ay ay ay ay machines ñooy pompe ñooy ñooy lépp machine yee koy def daanaka loo fi bay mu ñor lu tax mooy dañoo yaakaar yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam de ko moom loolu moom loolu la yàlla dogal waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam sax yàlla nee na ko woon innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasaa man nee naa leen mosutamaa jàkkaarloog yéen di len wax lo xamni xawmuko tay du mom nafiq yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi khulubi man ñoon mu yàlla bok ci ñoon man luma len wax dama koy gëm gis ngeen euh dil bi ñi dil ci stade bi diko tuddi ab Abdoulaye ñom ñoom ñoo fi doon tamante bëkk dembu dëmm Macky Sall dem bay tudd lu bon ci Macky Sall ci papay Macky Sall kon tay bu démé ba mu jagg opposant radical bo xamné ni population bi ñoko gëm volonté de la peuple mo leen jaxal ndax Abdoulaye wad bu tëddee limi xalaat moy bala mo dé Karim wad nek président de la république Macky Sall bu tëddee li jaxal moy scandale yim def mom ak ñi ñoom àndal ko ba xam koko fi wóotoo ndax ndax mom dina am jamm wala dé ñaari jaxal yoyu mo leen motiver ñu né nañ jéem di diin andi Karim wad ndax yalla nit ñu mëna a wàññi euh Ousmane Sonko mais yaakaaruma ko man de ma part man yaakaaruma ko que la preuve du contraire parce que man dama japp ni nit ñi seen bop ño wara a ñun de buñ koy dañ leen di fexé yé xamal leen ne leen Sénégal ni muy du deug wax na leen ne leen Sénégal ni muy du deug Sénégal ngay ngay néna leen jogël fu la neex amal milliards yu la neex nga ne cëpp Sénégal bo ne cëpp aéroport bala nga ag dekk ba nga jëm rek dal nga ci senegal yow garab yi ngay romb rek xobu naat dootoo ko tek sa beut xobu naat dootoo ko tek sa beut xobu naat dootoo ci tek sa beut yow dal nga parce que xam nga ne dugg nga ci sécheresse bo xam ni xamoo kañ nga fi gennat dama ne man l'an 2004 ñëw naa Sénégal nekk fa ba l'an 2007 billaahi àggoon naa foo xam ne nii nga xam ne daanaka gumba woon naa puso mënu ma ko woon a nas bi may jóge Sénégal quatre ans yi yu manqué ay ñaar weer yi ma def Sénégal ndax dund bu bon Sénégal ñëpp xam nañ ne amul xaalis bu la neex boo ñëwee mbaxal ngay lekk parce que ceeb añ dong lañ fonk añ añ kese lañ fonk parce que situation mayu leen ngay fonk añ di fonk reer parce que pauvreté ba c'est extrême pauvreté moo fa am extrême pauvreté dama ne ate lii gis nga fii jamono pusat ma wax ak yéen ak at yi ma am puset maa koy nattal saa bopp parce que nee naa la environnement dafa baax ci nit environnement dafa baax ci nit ngay xëy di xool garab yu naat àll bu naat bu mboq di am yaakaar di gis ni wala ci ni garé loh, day dolli yaakaar day dolli yaakaar te nit mom li fi mi nga am yaakaar rek du jaay ngorom mais ko gis mu dugg ci ni di ray nit wala muy agresser da dem ba ñak yaakaar rek mais li fekk yaa ngi garde si yaakaar li fekk yaa am yaakaar do dugg ci ay grave senegal dugg ko fa rek sa yaakaar tambali na wañ ko te ak go dekk ba nga jëm de sa yaakaar tambali na wañ ko ci garab yi ngay rom doo gis garab gu naat waaw mais garab bu naatut nan la am réew di mën a naate laaj naa leen ko garab bu naatut nan la am réew di mën a naate yal na leen yàlla yërëm yéen yàgg naa ko wax ko faatu lañ leen war a lañ leen war a ñaanal parce que yéen ndeeluñ dund ngeen ba pare rek yéen seen bis dong ngeen di xaar mais dee ngeen bu yàgg damay nettali tey loo xam ne nii lu doy waar lu yëngu dafa am mbokk mu mës a jóge fii ànd ak doomam dem Sénégal euh, ba mu demee Sénégal doom ja am na huit ans xamee bu baax bon bañ demee ñu fanaan ba bët set ñu xëy dem ci kër paa yi euh, papa yi waa ji di ndékki ñëpp daje fa di ndékki mu ne ko diw du ma tudd parce que kooku xam naa bët mën naa mu seetaan sama sama sama laaj bi diw kii mooy sama papa xam nga Sénégal moom nit ñi dañoo jeex jeex takk jeex takk. kii mooy sama papa xam nga comme mag xamee na war nañ ko war a wax parce que xale xale ku ko xam ne am na huit ans xamee na war nga ko ne kee sama yaay la kee sama papa la kee sama soxna la kee sama likki ci laa la kee likki leeral ko mu leeral ko ko bon euh, booy bi ne ci yàlla bu mu jàgg mu sëgg ci nopp yi ko ci nopp yi ne ko ne ko ne ko papa dead I think your dad is very sick you must take him to the hospital before he's dying here in the house wallahi lasim li may wax ku nekk fii moom a ko nettali nee na doom ci ne ko déy ko ne ko papa sa papa mii de dafa feebar feebar bu metti ni mu jeexee nii dafa feebar feebar bu metti yóbbu ko hôpital bala moo faatu ci gi wallahi lasim nga xam ne Sénégal boo fa gisee nit rek da nga koy yërëm da nga koy yërëm parce que moo fa amut yaakar mo ba amut lol xale bu ndaw moko wax eh, papa ne ko sa papa dafa febar ki yobbu ko hopital bala mo de ci kër gi deggal ma loolu parce que lan moy dund moy yaakar li fekk ya nga am yaakar da nga garder sa dignité do jaay sa ngor do def luñ lay xébé do wax luñ lay xébé mais heure bo noppé am yaakar ci aduna gis nga dama ma sa déglu encore euh Boussra Samb défé na la Boussra Samb waw tam ko wax conférencier mu wax lu am solo lo xamni waxi julit la jo xam duma ko faté mu xam man buma déggé ko waxi julit duma ko faté mukk mu ne jamono yooyu xaru xewé tal sa bop ci buntu pale mu ne ñu laaj ko ci mu ne man day dama wut ak sénégalais man buma gisé ku tal bopam xaru damay rus rus ci sama digg sama borom rus ci réew mi jàq ci réew mi tiit ci rew ñu ne ko ah, mu ne len xam ngeen tal sa bop moy dernière dernière étape xam nga kep ku dem ba amato ci sa bop yaakar amato kenn yaakar ci réew mi nga tal sa bop wa réew mi ci bop war nañu xamni ñom amatu yaakar kenn yaakaru len parce que bu amoon ku yaakar dana dem ci kooka wax ko problème am te boba man na am solution am ci waye amul kenn ku yaakar ci mom amul yaakaaru kenn yaakaaru kenn ci réew mooy xalaate noonu mais ku am na koo xam ne ni mën naa xool nit muy dee ak xiif du ko yëgal yaramam sax ñaata nit ñoo fi ma joxe exemple Sotrac ba mu tëjee léegi ña fi juddu sax xam naa si te ba léegi ñu ngi leen ameel ay ay ay ay seeni salaire te fay ñu leen ko te fu ne dem nañ fa jooytu ko fu ne dem nañ fa jooytu ko wër nañ def nañ karawaan luya ay biis wër Sénégal kër terexe yi kër fépp est-ce que solution amagul na ci kon solution fan lañ ko yaakaar ñoom fañ ko yaakaaroon dem nañ foofu te solution amu fa ñoom nag buñ doon nit léegi lan la ñuy def mooy delloo seen bopp ci yàlla xam ne yàlla rek am solution inna fadla bi yadillahi yuuti man yasaahu wallahu sul fadli asim waaye loolu ku gëm yàlla dëgg koy def doo dem ci kenn di ko jooy sa mbir tëddal ba guddi nga jóg jàpp ba sel julli ñaari rakka déeyaaleeg sa borom yàlla dana la wutal solution wallahi asib yàlla dana la wutal solution boo ko mënee dem istixfirlaa istixfirlaa istixfaar yonent ñett nit dañoo ñëw kenn ku nekk jaay ko jooy ko dit dañu def def délégation nañ dem ci yonte bu ñaanal ndax ñun suñu dëkk bi dafa bekkoon xamna muy dëkk bu melni Sénégal rek nga xam bo fa gëssé forage mu naqari garab go fa gëss am xobu xobu euh, euh ñu nako ñun suñu dëkk dafa dafa bekkoon dañu bëgg jox ñu ñaan go xam buñ ko défé xaj na suñu borom danañu dimbali mu ne leen bu ngeen démé sax leen ci astaghfirullah yeen ñëpp dëkk ba sax leen ci astaghfirullah keneen ñew kenn kenn kessé ne ko man di yalla dafa gattal sama wërsëg lool ma bëgg nga jox may ñaan yo xamni bu ma ko ñaané ndax suñu borom dina ma dimbali mu ne ko bo démé saxal ci astaghfirullah keneen ñew ne ko man de dama tax soxna té amna ak mom ay at té mënu ma fexé ba am njaboot dama bëgg nga ñaanal jox ma lo xamni ni suma démé ma bu ma ké yalla dina ma dimbali ma am doon mu ne ko bo démé saxal ci astaghfirullah lool nak alquran mo ko wax ba a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لول لول لول مرة استغفار باخ لب نجي تبير بقي من ننا لين دم برام خم خم لين واي الحمد لله رب العالمين تبس بني خير نيجي في جستو دي دولكو نحن طلب الهلمة المهدي إلى اللهدي بقي tay kon fi may tejé damay déllu ci wat ci rek lima len wax deal bi xew tay ji ni rek way ki nga xamné ne mi ngi don waji dem ci stade bi té 2000 francs tax tax mu bëgg fa dem na na na fàttali boppam ne moom du gannaaw dum xar nit la té nak wala xadi ne karab na bani adama yalla ko wax yow nang nga bëgg ñew ci suufeel sa bop ba yam ak malay lol xolat sa bop way rusi rusi sun borom mi la bind way rusu suñu borom mi la tudd ci boole la ñi ñi li mu wax ne moo la gën moo la moo lim bi doomu aadama moo ko ci gënal na ngeen na ngeen leen ci rusuwaay bu leen jaay seen ngor waay bu leen jaay seen diine waay dil bi nag damaa defe ne sénégalais yi duñ ko nangu dil bii ñi ñiy toog damaa defe ne danañ ci xëpp suuf comme ni ñu xëpp woon suuf ci mburoog soow ni ñu xëpp woon suuf ci mburoog soow yaakaar naa ne dil bii sénégalais yi dinañ ci xëpp suuf parce que bu seen pexé anto Ousmane Sonko mi nga xamné moy sun yaakar jo xamné japp nañ né moy dernier yaakar jo xamné mo meuna sa Sénégal ndax mom dong mo meuna taxaw wax lo xamné ni mané euh, euh mo meun guti la légui dama dégg mu wax légui rek la ko muju sétane bala ma tambali lay mu né mbokam mbokam dong baayam mo ñëw proposer Ousmane Ousmane euh, Sonko 300 millions né euh, na Ousmane Ousmane Tonkara Ousmane Sonko ba nekk impôt dama nee na daal di jël xaalis ba jox ko abri jox ko numéro compte jox euh, ndaw numéro compte ma ne ko demal dugal ko ci compte euh, ma dugalal la ko ci compte bi waaye man duma jël du ma jël ger mu ne Ousmane Sonko moo moo ma gën moo gën euh, Macky Sall moo gën waa affaire ñëpp Mamadou Ngouti man man Mamadou Ngouti moom fan la dëkk ci Sénégal Mamadou Ngouti Thiam moom fan la dëkk ci Sénégal man ngir yàlla damaa bëgg numéro képp ku ko am